Guys, what up guys? Hi everybody, sama gars <laughs> yi sama gars yi bëggee naa la non fi ma nekk nii moom xoolal non kii moom xoolal mooy man faa la ma Babacar Justin Ndiaye quoi kii mooy sama politologue quoi Iba Sow quoi <laughs> tu vois mais temps yii dafa nekk si tournée quoi campagne bu bett quoi <laughs> mais Jo Jo nul wax nul gars yi salaamaaleykum Assalamualaikum gars yi maa di nuyu di leen jaar di leen del jox seen wàccuwaay yéen ñëpp di leen bëggee big up sama gars ngeen jëfaay ok mais Sonko family Sonko family bon sama gars yi tey mais Iba tey on va parler de quoi au juste parce que gars yi ñoo réclamé quoi ñu ne sa analyse dafa pertinente loolu tam ma ñëwaat fekk si la fii quoi tu vois fekk la nga toog nii jàkkaarloo sa écran plat di sieste affaire yooyu quoi bon tey on va parler de quoi Bon, il y a certains grands sujets pour l'année. Avant, on va parler de Bon, les gars, moi j'aimerais bien qu'on parle de. maanaam tey jii maanaam euh, Abdoulaye Wade yow ban analyse nga am si maanaam euh, retour am ak ndoxtu yu muy teg fu mu ne nii quoi na gars yi sànni carte yeeg affaire yi noonu quoi jël ma bultof bi jëlal ma ko parce que li yow rek laa ci wóolu quoi gars yi na ñoom macha allah quoi man faala ma baa ko si jaay booy gaawal nag balaa sama sama sama sama temps yi di jeex te dafa am solo fa nga développé tey. waaw comme ni nga ko waxee rek. waaw. ñu ngi ziar ñëpp ñu ngi bigab ñëpp mm-hmm. di jox ñëpp seen wàccuwaay ok donc Ablaye Wade dañ koy dañ koy dalal Sénégal mm-hmm. muy euh, ancien chef d'état mm-hmm. nekk sunu maam nekk sunu référence également ci politique euh, donc retouram aussi tamit vraiment mu doon lu rëy sunu kanam bu muy ñëw dem leen teeru ji ko ndax dafa am loo xam da ko def Sénégal te Sénégal bu tolloo fii yàlla ak Abdoulaye Wade la mhm. ndax gis nañ tali yi moom moo ko fi def mhm. université yi moom moo ko fi def mhm. moo ko fi def ndaw ñu aussi également moom moo doon liggéey donc kooku jugee si réew mi ay ati at ci bisuwaat yoon la ñu dem teeru ko tatagal ko Euh, sagal ko mhm. donc par rapport ak ñoom moom loolu laa xam lu ma ciy wax mhm. leneen li mooy par rapport ak discours bi nga def euh, discours bi nga xam def na ko mhm. bon ñees ñenn nañu jàppee ko discours bu incendiaire peut être euh, dañ koy am fuñ koy teg rek ñun jàpp ni peut être mag la te am na lu ko metti deretam lañ laal te kii fi nekk aussi tamit tey bu déggee président de la république c'est grâce à Abdoulaye Wade tey bu fayee ko lii mu ko fayee jàpp doomam tëj jàpp yëpp tëj jàpp ñëpp toroxal leen mu waroon jël Abdoulaye ko temps de Nelson Mandela. wala tey yeneen kilifa yoo xamante ni ñu ngi fi def ko. donc Abdoulaye Wade bu ñëwee euh, nii rek la mën a defee. mais par rapport ak discours am aussi tamit. ñun jàngat rek lañ ciy am jàngat bi mooy que ni. wax na mais on va pas suivre. on va pas suivre dans la mesure où. le 24 février incha rabbi. la jeunesse va sortir massivement. et aller voter. contre Macky Sall. ñu jëlee ko fi. lenn la la xam ne d' nañ ci ak moom. mooy ok léegi yow looy tontu gars yi comme gars yi li ñu naan Ablaye Wade ñoom bi yëpp doomam rek moo ko ñor tu vois Sénégal ñoru ko doomam rek ko ñor quoi ndoxtu yu muy teg yëpp pour ñu jéem a euh, am nañu sax ñu naan dafay jéem a jël Macky Sall pour Macky faluwaat moo ko arrangé pour mu amnistie ko quoi ay dëdd yu ñu teg si suuf la tu vois nee nañ Ablaye Wade ñëw yëpp loolu ko dal quoi parce que nee nañ fu mu ne nii sax euh, maanaam Macky faluwaat mu def cinq ans dem mu comme Macky bu faloo def 5 ans dem après comme ça ba mu gis ci Karim Karim du mu nekk président gars yi ne ndox ti yëpp koy teg yow noo analysé loolu yow non man moom loolu gëwma hmm, Abdoulaye Wade fi mu toll nii nii nii hmm. am lenn lenn loo xamante ne da koy lié ak Macky Sall hmm. mënul nekk c'est pas possible politiquement mhm. c'est-à-dire li ñu jot a dund ñoom ñaar mhm. ak ak Macky Sall li mu ko jot a def mhm. def ko njabootam non Abdoulaye Wade mënul teg benn dil ak Macky loolu moom c'est impensable loolu kenn kenn kenn kenn xalaatu ko par rapport nag ak doomam aussi tamit peut-être nit ñi jàpp loolu ñu ngi wax loolu bon quelque part aussi tamit boo xoolee agissement yi nga xam mu koy def nii nii aussi tamit euh, da da nga a jox raison tuuti. mais quelque d' autre part aussi tamit am na ñoo xam mu leen di sauver. Mhm. boo xoolee li nga xam mu koy def si mhm. te wax na dëgg. Mhm. Macky Sall bu gagné. non dina metti si Ousmane Sonko. mais peut être xam naa alerte bi Ablaye def mu Ablaye Wade def. dina tax mu jël recul dina tax mu a jël recul. jël recul bi sax tiitaat nañ ci ndax. instruire nañ la commission d' enquête au niveau de l' assemblée nationale ba ki nga xamante ni moom mooy euh, nu mu euh, kii di def salle besogne yi di Seydou Diouf ah monté nañ nañ ko ba nga xamante ne instant yi préparé en tant que président commission des lois pour mu laal si euh, Sonko mais nag ñu koy xaar bés bu laalee oh, Sonko boo ko laalee bés bu ko laalee ah. <laughs> <laughs> non non non trois points de suspension à suivre doful waaw ah, sooy man maa xam ne doful mhm. ba ne dina wax mhm. lu jëm ci mburu Sonko ay commission d'enquête merci Iba mhm. doful non Seydou Diouf doful ok dëkk tëngeej du ko def du ko def xalaatu ko ok xalaatu amul fit bi ok amu mais léegi euh, euh, par rapport ak euh, trucage bi Ablaye dox ne yi truc c' est déjà truqué c' est période d' avance dem yow loolu loo ko jàngatee. non man dama jàpp ne élection fii kenn mënut ko sàcc. ok booy bu mënut a dugg kenn mënul sàcc élection. ok ok c' dina leer goo xamante ne. bu ko jéemee sàcc sax. waaw sax moom moo ciy ruus moom moo ciy am gàcc. ok ok ndax dina yoo xamante ne. écart yoo xamante ne du yoo xam ne mhm. foofu loo koy sàcc. waaw nga veille. ak rajo yi am naa rajo yu mu jot a jënd nag. waaw ah. mu wax. Ah. am na ñu rajo yoo xam ne ok nee ñoom 18 nañ commencé joxe seen résultat. ok mais leen di xaar rajo yooyu tam ñu leen di xaar. ok presse yooyu ñu leen di xaar. yenn journalistes yi ñu leen di xaar. ñu leen di xaar. ok dinañ dem voté ji. Hmm. toog ci école yi. waaw sécuriser suñuy vote. merci incha ba tant que PV yi génnul. waaw suñuy mandataire ak ñi duñu siège. waaw génn ak PV yi ci classe. waaw dañuy ci école yi. merci te les écoles du Sénégal. ok foo xalaat et même dans la diaspora am nañu ay représentants ñëpp. loolu mooy moo doon loolu mooy conseil bi. ok bu ñuy génnee foofu dinañ génn ak yu baax. Hmm. génn ñu accompagner leen. gunge leen ñu yóbbu ko tribunal. ok loolu la ñuy xaar amul problème. ko sécuriser. Hmm. dinañ ànd ba ñu jot suñu résultat ba Oke Oke gëm Macky Sall wàcc au soir du 24 février ok sama gars yi lii partie bi la suba damay jëlaat Iba incha allah demee monsieur monsieur monsieur euh, le président Oke naa la maat suba incha allah ok léegi gars yi ñoo koy laaj donc looy tàggoo gars gars yi leen di siyaar hmm. di leen bëggee ok première partie wax ni hmm. ñun ñëpp hmm. euh, waa Sonko family, yi yéen waa Sonko famille dama leen di wax ni ñun ñëpp ñoo far nous avons qu'un seul adversaire c'est Macky Sall ok benn adversaire lañ am muy Macky Sall